ñu ngi fii kër parrain bi muy Assane Fall borom Global Textile sama xol na dafa sedd ndax sama gaay yi nga xam kii yor brin kii yor marto man ma yor glace rek waxal door marto ak ba sotti ci glace jaw fara maa ngi lay nuyu tey loo yëg ci bis bi barki Serigne Bamba damaa kontaan la kontaan ba sama kontaan kontaan xam nga loolu mooy le rekontaan de kontaan kontaantement kontaante kon xam nga ne kontaan naa ci Alaaji Assane Fall mu baax mi xamante ne tubaarkàlla nee naa la mbaa xam ñaas ñaas la ci kanam ji li sël mu taxul mu dañ déedéet di ko ñaanal bu baax a baax a baax bisam bi yàlla na ko jig Assane Fall man bu doon barki moo Mohamed heure bu ma defalee teraanga sama benn baaraam bi dagg non kon kuñ naa amul. li ma jaaxal dafa mel ni ndaw guddi la ku téye rek da ngay jàpp ne yow kese yaa téye. kon ni may def mu ngi lay gaañ. bu <laughs> <laughs> ngi may gaañ ba. man dina ma di ko ñaanal bu yàlla bu baax a baax ndax ji li doomu aadama bi dinañ ko booleeg alalam toroxal. waaw boole koog dooleem toroxal waaye doomu aadama kenn du ko boole yaram toroxal. ku yaru la barki yonent bi mën a def lu baax lool waaw di ko ñaanal yàlla bu baax a baax yàlla defal ko jàmm. esaat nag tey dàq dóor bi ñuy dóor dóor xam Bamba Thiam tey loo yëg waaw yëg mbégte ak contentement bu baax na Assane day ku baax Assane ñu ñëpp ko bokk ndax boo baaxee rek alalu ñëpp nga kon yàlla na ko yàlla defal jàmm yëg naa daal lu rëy ci man yow mi tamit bi ma la fi gisee damaa kontaan waaw kontaan naa kenn du yow kaay Père Mbow ay Père Mbow ay eh, jamay kee bu dëgg làmb ji boo gën a bon ci àdduna koo koo yées ci réew mi man séquma ak moom ay wax man Assane Fall demal mais demalu ma jamay kay ndax gis naa lam ma def waaye nag bés bu ne bés lay xaar bés bi nag bés la boo xamante ni bés bu alaa dawme la loolu lépp Sénégal la mais loolu lépp ñun la ak sunuy doom ndax jamaïcain Euh, bu may tooñ ci action yu mel noonu dafay nekk lu ma rafetlu mais day neex day nekk lu neex ci man xam nga lan moo tax mooy dañuy dama gis ni moom amul lu dul euh, jéem a gérer su ma digganteeg moom xam ni xëy na yëg moo tax mu def loolu. ak numéro yi mu yor bàyyi ñëpp di tooñ Père Mbaw. ñëw tooñ ma bon dugal ci di Diop dugal ci ñoom ñëpp kon loolu mu amee tey mu am bés bu toll nii jël bés bi tudd tuddee ki nga xamante ni mooy Assane Fall global textile ñun suñu xol da ciy sedd ndax loolu mooy Sénégal traayante kaf ree kenn ku ne destabilise sa moroom ñu xam ne ñun ay nit lañu rek yow nag dama lay gërëm di la sant ndax sa liggéey rafet na macha allahu taala te jox nga ñëpp cër kon yàlla na ngeen am jàmm Khadim Gueye nag laa àndal mi ngi nii muy président. Euh, borom géejawaay ma bëgg nga jël ko. maa ngi ñëw ci waxtaan ak moom ci bés bi. jërëjëf Mbow maa ngi ñëw ci Khadim Gueye tey say mbok say xarit say njagañaale ñëpp dañoo ñëw ngir dooleel la waaye man li ma jaaxal may communicateur traditionnel yi reporter yi presse bi ñëpp koo wax Assane Fall danaan ndawalu guddi la ku téye rek day jàpp ne moom dong moo jàpp ndeke ñëpp nga jàpp. waaw xanaa du gën a dolli sant yàlla di gën a dolli waaw di gën a dolli sant yàlla xoolal ku mel ne ay saa Touba jóge ba Touba ah ñoo xam ne jóge ba Ndar ñoo xam ne jóge ba Ziguinchor Kara ah bàyyiwuñ kenn mu limi juum ah ñu ñëw te Malika Pala fii ñu ngi fii doog a dëkk paa bi ba mu sañjee fi ma dul une semaine ñoom ñëpp ñu war a dañoo ma seen fay yàlla baax na <laughs> non mu ngi mel ni vinaigre rek. macha allah ndeysaan Ibrahima Kaay. Ibrahima Kaay. Ibrahima Kaay. salaamaaleykum. Chérif maa ngi lay nuyu bu baax di la si. waaw maa ngi lay fay nuyoo yéenay waa fan. wasaare lamb. ah wasaare lamb ji. waaw maa ngi ci jàmm alhamdulilah. tey bis bi ban yëg-yëg nga ci am ñu jël drapeau. tuddee ko ki nga xamante ne sa doom la waaye sa xarit la. muy Assane Fall ban yëg-yëg nga ci waaw yëg-yëg bi ma ci am de mooy euh, fi yàlla lay waxee waa amma bi ni'mati rabbika fa haddis mooy na am euh, yëg-yëg ci loolu. waaye bu ca ndamu. Mm. kon dama naan lii ñu ko tuddee yéen jeunesse bi yëpp lañ ko tuddee. ndax gis naa seen taxawaay ci wetam. kon tey su ma koy ñaanal moom mooy damay ñaanal jeunesse sénégalais bi yëpp laa ñaanal. ndaxte yéen a ngi nii bàyyi ngeen seen i jot bàyyi seeni i itte bàyyi seen i soxla ñëw taxaw ko ci bis bi. kon bis bi nekkatul bisam seen bis la. man tamit samay nit a ngi nii. ñoom ñëpp bàyyi nii seen lépp ñoo taxaw. li ma leen di digal rek mooy yéen bu ngeen fi jógee. na ngeen def ni moom ba mel ni moom. ndax tey def ni moom ba mel ni moom xam nga mooy lan dégg ndigalu fa cay dëkk say loxo say waajur ñu ñaanal la. sëriñ bi kat lu mën a mën a mën a ñaan. boo amulee ñaani waajur sa ñaan des na. mbër yu bari ñoo ngi leen daan ci làmb ji xam nga lan moo koy indi. dañ lay commencé jox ay pri ngay bëre. sa yaay di la ñaanal sa papa di la ñaanal. boo si commencé am dara. maa ngi gërëm sëriñ diw ca Casamance. maa ngi gërëm Serigne Diou ca Mauritanie. Hmm. waa Axlu Nangam. waa sëriñ Nangam waa ana ndey ana baay. xanaa xamoon ne ñaan bi njëkk ci doomu aadama mooy bi nga jëlee sey kilifa. Hmm. mbaay mbër yu bëree bari nañ leen ci daan ci làmb ji. saa amee ndam la ni Serigne Diou bu loon ak Serigne Diou. waajur moo njëkk ci doomu jërëjëf. surtout nag ndey nga xam ni juróom-ñeenti weer juróom-ñeenti weer juróom-ñeenti bi ñëw xaw laa gaañ. dee dékk say loxo yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ni soo amee na nga jox sa ndey nga amaan nga jox sa ndey nga amaan nga jox sa ndey amaan ñeenteel bi yoon mu jox sa baay xam nga ndax lan loolu. boo amee ndey ju baax loo ko jox mu bokk sa yaay sa papa. kon yéen waa Wassare Lamb message bi ma ci man a doxal mooy. na jeunesse yëpp topp comme Assane Fall mii ndax man maay waajuram bu góor waaye sàkku ñaan moo tax mu yëkkati 4-4 bi jox ma ko boole kook enveloppe. ma ne ko xanaa da ngaa toppandoo Wally Seck ndax jox na jaaga 13 million nga ñëw jël sa enveloppe def ci xaalis. boole kook caabi oto. papa loolu yëpp dinañ ko yeggale bu ñu ñëwee stade ñu ngi lay jaajëfal xaaral ma topp ji kaay daw si. sa doomu ndey sa xarit sa lépp moom la ñu tuddee drapeau bi muy Assane Fall ban yëg-yëg nga am ci drapeau bi waaw euh, defe naa ni yëg-yëg bi yow mi ko laaj. am nga loo ci xam. ndax depuis boobu ba léegi. fuñ toll maa ngi lay soññ yaa ngi may soññ. Assane nag li may faral di wax. maa moom midi ak une la. damaa liggéey woon sori Dakar lool. mu ne ma bés bi bu yàlla dogalee ngay nooy. Mm. doo ko wuute. Mm. te jiili. ki bëgg rek la sagal. te comme ni ngeen ko waxee léegi silencé la yor day dugg ci kër rey ñëpp te kenn du dégg téel ndawalu guddi la rek ku ci daj jàpp nga ni yaa ci ëpp le Serigne Fallou la yaakaar nag yàlla na ko defal lépp lu mu bëgg bés bii nag def nga ci lépp ndax fa Assane war a taxaw gis naa la nga taxaw fa fépp fu ma war a taxaw taxaw nga fa ndax sori waaye gis nañ sa liggéey bi nga ñëwee jëloo wax ji rek ñaawal ko di ko wesaare da jël wax ji defar ko ba mu rafet di ko wesaare ñëpp mun cee jariñu ku ñëwul ku naan ku yokkul da ngaa wàññi. yow baa jili boo dérapé am nañ sañ-sañu xeex ak yow mais yàlla dogal na ni yaa ngi ciy tege te ku am dégg-dégg ku ne xam ne yaa ngi waxtaan ak mag ñi ndax dan ne gone bu bëggee gudd fan te bari xam-xam day diisoo ki mag. ñu ngi lay encouragé di la félicité di la wax ni man su ma wanee ginnaaw su ma la gisee du ma ragal ndax yaa ngi ciy dox yaa ngi ciy wax ci li nga mën ci loo mënul yaa ngi ciy jéem yow sa bopp sans Assane yàlla na la yàlla fay. di doxal nag bu baax baax da wax ni jiili Jamaïcain tàmbali la def mais buñ ñëwee nii toppuñ ñu def rek. la ilaha illallah waaw waaw. Ndeysaan gaa jaar ci bunt ba waaw dama bëgg rek nga yëg yëkkatil ma booy puusal fii sa bopp bi di mel ni sama bos nga yëkkatil ma rek su ko defee ma dugal Sa Touba woykat Sa Touba ko njëkk a fekk mu teral ma sa Touba liñ lay woowe ca ngay moom ak bëgg Serigne Touba Balla sa buri Serigne Mbàkke maaram saamu Serigne Falliloo sama waaji saa gaa yi gaaw yaa gën a gaaw sama waaji ak bëgg Serigne Touba bal sa buri Serigne Mbacke maaram doyloo Serigne Saliou borom daara njurul njàppanal xabaan borom la ganang nookaan borom ñaari daara ye ca ngaabu borom njowaan ge coroon xayga sa Touba mu Serigne Saliou ba bamba ne doom Serigne Saliou taxul bëgg Serigne Saliou doy na jaamu yàlla saa ya bëgg Serigne Touba moo tax mani mbër yi ni coow ci réew mi sa Touba yaa leen jooji ci réew mi sa ba yaa leen yore woykat ñi joow ci réew mi sa Touba yaa leen moo tax biñ ma woowee ma daa di ñëw ma daa di ñëw nga njemba kuweli ma tanjaay guy ganiis na sa Touba kuy donu ma samba guy ganiis naa. ndeysaan dañuy ñëw ci saa Touba nga xamante ni vraiment tey parrain bi ñu tuddee bis bi muy Assane Fall gis nañ saa Touba ñëw teew ànd ak moom ñëw ci këram te bu ñëwoon làmb jarak jot na doy na saa maa ngi lay nuyu baax di la siyaar sa diggante ak Assane Fall ban yëg-yëg nga am tey ci bis bi ko Jamaïcain jël tuddee ko ko te sa diggante ak Jamaïcain nekk lu yàgg lu wér lu dëggu. waaw di santaat Serigne Saliou bu baax a baax di santaat Serigne Saliou sama yaakaar di santaat Serigne Saliou di nuyu waa Touba gépp di ñaanal sëñ mun Mountakha Mbacké Bassirou mu yàgg fi loolu te wér ak mboolem kilifa diine gu nekk ci réew mi ñu ngi sant bu baax a baax di am contentement bu baax ndax mel na ne Assane Fall ko tuddee drapeau rek man la ko tuddee ndax sama xarit la sama lépp la ba pare ñu bokk luñ mënta séddoo muy sëriñ bi wax dëgg yàlla muy nit ku am ngërëm nag te doonut lu may waxantu ndax dama toog sëñ Abdou Karim toog Assane Fall toog Assane Fall ñëw toog ci kanamu sëñ Abdou Karim. indil ko ay tissus yu baax sëñ bi ñaanal ko te yaakaar naa ku sëñ Abdou Karim ñaanal rek sëñ Fallou moo la ñaanal. kon kooku am na ngërëm. mu jóge ci loolu. ñëwaat defaat ko ci kanamu sëñ Mountakha Mbacké mi nga xam ne moo fi Serigne Touba Khadim Rassoul mu ñaanal ko moom it kon yaakaar naa ne Assane tey bu dee ak ñaan yàlla may na ko ndax am na ñaanu waaju baax ma ñëw toogaat fii bàyyam gërëm ko. ñaanal ko. kon Assane dañ koy ñaanal yàlla lafal ko cat. wax dëgg yàlla suñu xol sedd na ci moom rëccuwuñu ñu doon xamanteeg moom. ba ñu xamanteeg moom ba léegi yokkute rek. parce que du ñu wax dara loo xam ne lu intérêt nekk la lu suñu intérêt nekk rek ak lu ñuy jëmale kanam moom la ñuy wax. di ko ñaanal yàlla li bëgg ci àdduna moo ko xam yàlla na ko yàlla defal. bis bi nag doon na bis bu kawe loolu ci ñun ndax heure bi démb Touba la ma fekk. mais dama ne woon lu ma jàpp dama koy bàyyi ñëw ngir jëmmam. wax dëgg yàlla di la ziar nag yow bàyyi jili nga xam ne dañoo bokk Serigne Saliou ngay sama frère di sama lépp di nit ku baax di nuyu gaa yëpp rek bàyyi ma kenn wax dëgg yàlla man presse bi samay samay frère rek ñoo ci nekk maa ngi leen di ñaanal jàmm ak ak lu làmb yëpp di santaat Serigne Saliou bu baax a baax jërëjëfati Serigne Saliou. jërëjëf Sa Touba maa ngi lay jaajëfal bu baax mbokk yi kon noonu la ñuy def.